jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën ne di leen wax bonne et heureuse année deux mille vingt quatre jël ak yéen jotaayu beneen borom xam naa gars yi di leen ñu ndoog buur kañ la ñu gis gëj a gis kanamam ci maara mais kii xaw ma nu koy def <laughs> ndax day sama dañoo yàgg fekkante fu ne ndeysaan muy jàmbaar di ñaan ko du yàlla gis ngeen combat Ama Baldé lam ci waxoon lu leer la vidéo yi mu ngi fii gis ngeen diggante Modou Xarañ Lô ak Boy Niang bokk naa leen du mës bokk ci ñuy dem vaar la waxoon da ko waxoon am fu mu ko teg te fu mu ko tegoon weesu lu xam-xam sëñ Cheikh Ouna Diop bu ngi lay nuyu bàyyi la nga borom tuba barke borom tuba wajaxal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida <coughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare jiital ci sunu nuyu ak sunu ziyaar nag ñaanal kilifa ak dëkk bi muy xalifatul mu yàgg fi loolu taa na sëñ buur noo ngi lay masawu coona ndax ku ne xam na ne Dakar ba Touba jegewul <laughs> waaye itam bi nga ñëwee forcé ñu ne faaw hmm. rek ñu waxtaane ko ngir li nga xamante ne si maanaam waxoon nañ ko ci làmb ji te yàlla xam ne ne ñun bi ñu koy wax sax hmm. dañ ko gis rek wax ko ci suñu digg ak yàlla waaye waxuñu woon ko woon pour kenn wooñu wala hmm. pour kenn interview ñu wala xeet yooyu waaye yow nag mën naa ne xam nga ci ñun lu bari daal moo tax it boo ñëwee immédiatement li nga sàkku ci ñun dañ koy daal di nangu mu ñu mën a toog waxtaan ndax euh, jamono dafa toll foo xamante ne si euh, wax ñiy wax dañoo bari. Mhm. te ñiy wax dëgg néew lool loolu nag moo waral ñun suñuy wax pour mu bari wala xeet yooyu bariwul ndax dañuy bëgg en général ñun nit ki nga xamante ne si yàlla daf koo xeet ñun mu ñëw ci ñun. Mhm. li nga xamante ne si maam daf koo dégg ci nun ba ñëw ci nun loola yaakaar mu du ca tas mukk te loolu mooy sunu objectif. ci mhm. bañ ko dalee def ba tey. ndax man damay wax ne sëñ buur li ma gën a sant yàlla ci ñaan mooy man ba ma dalee ñaan yàlla ba tey mosuma am noon boo xamante ni si maanaam ci ci ñaanañu noonale maanaam diw ak diw naa sa kër teraanga bu ne ay million ak ay yére oto waaw di ko ci koo jëflanteel rek xol ba set ba ci ba lii ma sol may hmm. sant ku baax ku ñuy wax maam Cheikh eh, Mbacke nekk fi moom di yëngu ci téyër hmm. am lu ñu jëflante woon moo ko def nii ba mu rafet mu andi ko hmm. man sañ buur dama laa wax ne loolu laa gën a sant ci yàlla ci li may def ndax mosuma am problème ak nit te fekk ñaan moo waral ñoom problème képp koo xamante ni si maanaam am nañ problème rek lañ mm-hmm. amee problème ca moom la xam nga ne fii mbër yi fi jaar bari na mm-hmm. am na làmb joo xam ne bi mu jubsee woo nga ma ne ma sa diggeeg diw naa am ay ñoo xam ne dañ laa woo maa ngi koy rappelé wu di di dox tànk jàmm diggante Balla Gaye la woon ak Boy Niang waaw waaye man boobaat euh, kenn koo xamante ne si day daf daf maa daf may tënk ci mbir man amul ndax man nit képp koo xam ne jàppante nañ rek yàlla moo ñu boole xam-xam moo ñu boole. Mm. loolu moo waral chaque jour rek koo xam ne woo na la rek ne la buur diwkat léegi dama àgg ci dama koy woo. waaye nanguwutut nanguwutumaa ñaanal wala nangam ak sàngam. Mm-hmm. loola ci ay melokaanam la parce que man dafa am ay ay ay melokaan yoo xam ne moom laay xaar ci nit. Mm. pour mën koo ñaanal bi ci njëkk nag mooy nit ku du du kan nit ki li may jox mais nit ku dëggu. Mm. man loolu laa gën a soxla ci nit buur. Mm-hmm. muy lu ama ama am solo nit ku dëggu noonu laa gën a soxla mën euh, man Serigne Bour mais sëñ bi diggante Modou ak Balla Gaye ñu ngi koy coow de. <laughs> waa sëñ buur combat boobu yàgg na. Mm-hmm. ma la Modou de dana yor roi bi mm-hmm. te dana ci yàgg te gone yii ñu yaakaar ne ñoo koy daan. pour ñu daan ko du yomb. ne woon naa la itam Modou lii mi li fekk mi ngi ko yor du gone koy jële ci moom waaye mag a koy jële ci moom mm-hmm. combat ak nag junjoon naa la ko man mm-hmm. waaye am na wax yu bari yu ma waxoon ci ci ci làmb ji nee woon naa la fi ay jamonoot damaa gis Balla Gaye yi di dellu si waat ci ay loxoom. waaw loolu yaa ngi ma toog nañ fii ma ne la Balla Gaye de damaa gis roa bi dellu si waat ci ay loxoom waaye nag waxuma ne <laughs> Balla Gaye ak Modou Lo bu ñu bëree Balla Gaye day daan wala nànkam waaye làmb jooju daal bu taxawee euh, du avantage ci Modou Lo. d'accord ci. maanaam su ma doon Modou moom te bëgg a téye lii ma yor dama koy wax ne ko mën naa bëre ak ku ne te te te te teggi ko parce que dafa am lu ci xew loo xamante ne si ba ba jamono ji loolu day fonctionner te loolu yàqugul. Hmm. waaw ndax gàllaaj mën nay topp nit bàyyi bàyyi bàyyi ay siyeekali siyeekali siyeekali. kon ñaan yàlla lu am la lu nekk la lu wér la. waaw lu lu am la sëñ buur. lu nekk la ndax boo gisee ñu baree bari dem ba jàpp ne ñaan yàlla daa amul mooy ñi ci nekk di ko woote woo te xamuñu ko moo bari dëgg la waaye gis nga xam-xam bii ñu wax xam-xamu lasaraar mm. nit mënu koo maîtriser mukk sañ buur di la ci defal loo xamante ni si après yow da nga ci danga naan mm. lam ma waxoon gisuma ko mm. parce que yoon la woo xamante ni si saa bu ko doomu aadama bi aadama bi maîtriser rek billaahi wa rabbil kaabati lim la ciy liggéeyal su jaaree fa mu war a jaar rek loolu mag ñi dañ ko daan wooye wooye poñe yàlla hmm. poñe yàlla maanaam day nekk loo xam bunt yoo xamante ni saa bu ci doomu aadama bi jaaree bu defee sarax yam war a def def wërd yam war a def rek incha allahu taala day daal mën a am loolu moom amul amul amul amul sàkk waaye nag hmm. léegi boo gisee yëf soof yëf yi génn ci di wax jafe daa bari ñu koy wax te maîtriser wuñ hmm. loolu daal moo ci moo ci jafe-jafe si jamono la nga daan def ci noob man ànd nañ ci àllu ci àllu nayre bi ma gis la ngay noobee noob ci guy mm-hmm. noob ci ak fas mm-hmm. noob ci buumuk falle mm-hmm. noob la la ci sama borom defaloon nga teeku waaw sañ buur xam nga yëf yi bi mu yàqoogut bi mu yàqoogut su ma ko waxee mooy bi coow lu bëreegut yow fekk nga ma fu ne teew nga itam ma defar lu ne yow teew nga ba tàyyi ñaari ñit seen diggante tàqali ko ma defar ko fi ñu toog fi ñu toog wallaay ndeysaan ne la bala ñoo yegg fañ jëm ñaari ñaar ñii danañ ma woo téléphone ñu defar ko nga ne ma déet sëñ naa ma defar ko ñu départ di dem laataa ñuy àgg di añ ba àgg la ma la waxoon am wala xoj jiit la oto billaahi wa rabbil kaabati <laughs> yow toog nga sama kër mm-hmm. ñuy def vidéo nit woo ma ne ma ne ma ne ma oto dinaa la ko jox ma def ko appaleer ngay dégg mm-hmm. ci diggante yu ma defar parce que xam-xam boobu dama ko jàng ci lu weex jàng ci lu ñuul mm-hmm. gis nga boole ñaari nit ba seen diggante mel ni mburoog soow wala boole ñaari nit ba nit ki mel ne daa daa bëgg maanaam dama am noob goo xam ne su ma ko liggéeyee ni doom di bëgge ndeyam noonu la góor gi di bëggee jigéen gi su ma ko defalee góor gi itam noonu la ko jigéen gi di bëggee hmm. ñu yàgg toog ma defal ko nit ci léegi-léegi defal ko nit ci ay bis defal ko nit ci ay waxtu loolu nag dafay nekk ba tey te dama ko gën a renforcer yu ko gën a saf sax ñoo fi ne mais ci jamono dama boo gisee boo gisee sëñ buur lu baree bari man nangootuma ko jamono moo moo moo moo moo yàqu xam nga bari na bari na sew naa kaay ma ma jël la nangam maana la buur man su ma sañoon yow rek laay waxtaanal. Mm, mm, mm. waaye waaw waaye boo gisee nangatuma nangatuma génn ci lu bari. mooy yëf yi ñuy génn naan man la te ñoom daa bari te bëgguma ñu may classé ñooñ man. ndax man li ma yor dama koy sàmm ndax maga ma ko jox. loolu du ma ko bazarde ci ci affaire xale yi. sëriñ Thiaw naa gaañu ñu ngi fi décembre. suñu compatriotes yi. Sénégal yu bari tey jóge nañu bitim réew tey ñëw. bëgg a waajaat. pour mën a delluwaat. ñii seen yaram yàqu. ñii amoon problème yi këyit. ñii dëkk ba dañ fa bàyyi ay plaignant. ñii mënuñu fa jëlee dara. ban occasion nga li may ci sa jëmm ji. waa xam nga doomu aadama moom. mbiram mbir yëpp dañoo bokkul moo tax mbir yëpp mënuñoo bokk ni ñu doxee. moo tax day am loo xamante ne si dañuy dellu si waat si rek ci cosaan doomu aadama saa bu nekkee ne daa génn di wuti. wala mu dugg mu dem mu dëgër mu dellusiwaat bëgg a delluwaat. dafa am loo xamante ne sii mooy tax mbirum doomu aadama mën a dox. mooy lan mooy mu seetlu ay mbiram. seetlu ay mbiram nag danse la ci mu xool sëriñ boo xam ne mënta seet mu di ko seetlu ay mbiram da koy gën a tëj. Mm. ñaata nit nga dégg buur. ba ma jugee ca sëñ ba ba ma demee ba ma ba ma fa jugee ca laa gën a tëju ba ma joxee saafara sa uh-huh. ca laa yàqu nangam nga xam ne da ngay dem sax ba jàpp na yow li la dal sëñ bi la ko teg mm. te fekk ne dëgg la moo la ko teg mooy lan mooy daf laa wax loo xamante ne si du loolu mooy sa mbir daf laa xamul ba noppi bëgg laa liggéey da gis sëriñ boo xamante ne si dafa maîtriser ilmun nujum muy xam-xamu biddiw mm. sëñ buur xam tabian bu baax a baax mm. man laa génneel sa malaakam kaw man laa génneel sa malaakam suuf man laa génneel sa couleur wax la luy sa sarax wax la luy sa biddiw mm-hmm. wax la luy sa bis mm-hmm. billaahi wa rabbil kaabati noppi ngaa lijjanti lu lu sotti mm-hmm. lépp loo song yàlla dana ci ànd ndax dama laa wax ne doomu aadama day am bis yoo xamante ne si lépp lum ci song daf koy daan ndax yàlla bi ñu bindee dafa am ci ay texte ay norme yu ñu bindee yoo xamante ne si loolu li fekk ñu ngi koy xam rek dafay doole suñu mbir bu baax baax man na yàlla daf maa dimbali ci seet yow xam nga ko bu baax baax képp ku ma mas a seetal ay mbiram billaahi lazi laa ilaaha baat bi dina ma ko wax muy ban baat muy man de ba ma dalee ñaan lu ba tey yaa ma door a wax lu leere nii ci sama mbir mm. loolu moom dama maanaam baat boobu baat la yoo xamante ni sii dama ko saa bu ma su ma su ma li may gën a sant yàlla mooy bu seetal nit danaan ma ba ma dalee seetlu ba tey kenn musuma wax lu leere parce que da man dama lay décortiquer sa mbir su ma ñalaa tabax sàngam ca nga bokk danaa la wax fee yi tax yi xam yi tax nga bokk ca tabax ba mm. su ma ñalaa biddiw sàngam ca nga bokk danaa la wax melokaan yi lay wan ne ci biddiw sàngam nga bokk su ma ne laa bis sàngam mooy sa bis danaa la wax melokaan danaa la ko leeral di la ko leeral ba lépp leer ci sa bopp ba nga xam ne kon yow gàllankoor yi lay arrivé démb rek am na koo xam ne dama ko seetal lu nekk dugg na ci fekk ne biddiw bi moo tëju ma ne ko ku baax mu ne ma ah ma ne ko gis nga sangool dambay waaqan sangool dambay suyi na sangool sunguf yëpp li fekk sa biddiw bi mi ngi tëju mënoo sangoolu la jariñ mm-hmm. parce que tëju boobu du caaxaan dafa bokk tëju yi nga xam ne moo gën a dansé ci nit mooy nit ki biddiwam tëju nit ki su biddiwam tëjoo su jugee di wuti du am su suñ ko diggee yaakaaram day tas su doon xaar ay kii sax yii sax sax mu déposé loo xam ne ñi mu ko déposé ndool ñépp dañoo am mais moom day am problème mu am mm. nga xam ne moom day mujj jaaxle ci waa lii lan la mm. te fekk ne li waral loolu yépp mooy biddiw bi moo tëju mm. su ko nit diggee du ko jox day mujj sax daanaka kum yaakaar bu tas da koy yomb kum séqal da koy war nga xam ne day mujj nit ñi dañ koy war a war a war ba mujj day jàpp ne waa man la fekk ne biddiw moo tëju te kooku noonu suñ tëju woon biddiwam rek billaahi mbir yi day ko xewal daf koy yomb wërsëg daf koy yomb am daf koy yomb lépp day daal di taxaw ci ci ci ci ci ci ci ci ci melom mais nag nit ñi seetlootuñ wala ñi leen di seetal xamatuñu luy seet man loolu moom ma ci gën a metti waaye koo xamante ne si da gis sëriñ bu xam seet mën a seet ci ramlu man a seet ci biddiw man laa génneel say say couleur man laa génneel say bis wax la sa sarax wax la sa malaakam kaw wax la sarax góor ak sarax jigéen ban moo ci gën ci yow mm. wax la xeeti sarax yi nga xamante ne si moo gën ci yow nga di ko saraxe sañ buur kooku noonu mënta wuti dama ne la ñett ñett nit mënu koo fonk di dellu gannaaw muy sangu mm-hmm. suuru mm. saraxe ak sikkar ba ñeent kon dëgg la te nit ki sax day noonu lay amee turu yàlla woo xamante ni si maanaam moom la war di liggéey ndax ci la eh, mbiram aju turu yàlla wow nag mën nañ ko ci liggéeyal ci biir jaaro boo xamante ni si moom jëmam li fekk maanaam jaaro boobu mi ngi ci mbiram bu bokk ci couleur kooku affaire am day dox loolu mënu ci dara nga xam ne maanaam soo taxawoon ci bëgg koo bëgg koo def dara sax yow yaa yàqu foofu mm. te sëñ buur yooyu dafay nekk xam-xam yooyu dafay am yow yow yow boo gisee <laughs> maanaam lu lu baree bari ma di ko nangu yow fekk nga ba tay ah, man damaa fekke dañoo ànd ci àll dama laa fekk ngay liggéey ñu yendu ca kër ga maanaam añee fa ceebu euh, ñebeeg yàpp bu neex waxtaan ma gis teraanga yi ñu ànd euh. nañu lu benn du ñaar du ñett du ñett waaw yow yow yow yow xam nga ndax fekk nga man yow fekke nga bi may door a jóg di départ di mm. ñëw Dakar mm-hmm. nekk fi benn baraak yor fi benn néeg fekk nga ma fa mm-hmm. ak ay coonaak ay ay bu yërmande demee tey ba nga ñëw Touba yi sama kër fekk ma fii nekk sama kër mm-hmm. yaa ngi dégg la ma la waxoon keroog laa lay waxaat dama ne la buur nga ne maa man la jërut nga may yërëm mm-hmm. gis nga lii may def téye naa ci boo xam ne lépp lu doomu aadama di am dinaa ko am ci lii nga ne ma tee ngaa dem def sàngama booba sax yow yaa ngi ma fekkoon ci dama daan seet gratuite <laughs> nga ne ma see seexu naa tee ngay tee ngay fayu ko ci seet ma ne la buur man jànguma xam pour di fayiku mm. man damaa jàng xam-xam pour service sama réew mm. te loolu yàlla li mi ci dimbali ba tey ba fii may toog di wax ak yow mm. lu baree bari loo xamante ni sii bu ma koy defal nit dama koy defal li wàññi lay tàngalaay waaye du xaalis lañ ci sartonte wala yooyu man loolu laa gën a sant yàlla ci ci ci ci ci li may def loolu laa gën a sant yàlla ci lii may def euh, di mbër moo di mbër moo xam ni dëgg-dëgg jàmbaar la wax na dëgg man moom ak waagaan suma cameraman jóge nañu ndakaaru ba caay fekku fi Touba di ànd di dugg ci ay àll muy jëf te buy jëf buñ jàppare dinaanu buur li may jëfal nit ki bu soobee yàlla balaa ñëw tourné ba pare dina ma woo <laughs> balaa ñëw tourné ba pare <laughs> nit ki dana woote ko ah sëñ bi ma ne damaa man damaa jaaxle ma ne ah jaaxle ci lan nga ne ah, waa sëñ bi yow man lii kat sànq laa la ko wax mm-hmm. yàlla sama borom sottal ko loolu nag tey li ma jaaxal mm-hmm. mooy li ndam yi bari bari sa journal mosut a fëgg dënnam mm-hmm. ne man la mm-hmm. déedéet parce que xam-xam ku ko yor xam-xam yor secret bu wér xam yàlla xaqiqatan du ndamu du fëgg dënnam ndax yàlla lépp lu mu la may rek lam la xañu kopp lépp lu la yàlla jox ndamu ci xam-xam weesuwut ak nga fekkoon géejug sumbi jum gi nga dem ba ca géej gi nga tànk ci am kopp di daw jàpp ne jeexal nga géej gi ndax xam-xam dafa yaatu man nag booba xam-xam ci laa teg sama tànk booba yor naa secret nob bu tàng jër boo xamante ni si ku ma ko defal billaahi defal ki ma ko njëkk man se ki ma njëkk liggéeyal maanaam nitu kilifa gi ma njëkk a nga xam ne koñ xam la mu tàqalikoo ak jabaram ñu indi ko sama kër ba ma ko defalee li ma koy defal billaahi oto la yëkkati may ma te man na naa bu ma ne woon diw la ñëpp xam ko mm. nit jàpp nañ ko fii ci foo biyee mu nekk ci état bi nekk ku ñëpp xam nga fekke ko nga dégg ma ca coow la bu baax a baax. coow loolu nga ne sarax man nee naa la sëñ bi li nga dugal seeram nii est-ce que lii mën nga koo lijjanti parce que man bi may door a tàmbali ñaan yow yaay ki nga xamante ne si yow bokk nga ci ñi nga xam ne mm. yaa njëkk a taxaw pour génne ma pour nit ñi xam ma mm. Mm. coow loola ñu dem ñu fay ko mu jeex sa kanam yooyu ngay xam ay nit yow di la contact coow lu coow lu difficile yàgg maa boole ak ay nit waaye nag sëñ buur ñi ma booleel ñëpp nag ki ma ci gën a sant danaa la ko wax tey muy soxna Mariam Cissé. ndeysaan waaw nekk euh, Amérique wax dëgg yàlla kooku defal na ma lu ne mm. ba ba mu jàppee ba tey nag bàyyiwul mm. nit ku mu xamit indi na ko ci man mm. te loolu lépp grâce à yow ndax kooku dem na ba weer wu ne salaire la yëkkati jox ma billahi ba fii may toog di wax yow weer wu ne mu yëkkati téeméeri junni jox ma mais la nga ko la nga ko defal moo ëpp li mu lay defal ay doomam am na doom juy football mm-hmm. maa koy ñaanal doom juy basket maa koy ñaanal mm-hmm. doomam yi sax ku ci ku ci xëy sa sëy am coow rek mm. lu mu fajar fajar dinaa gis numéro mm. danaa danaa gis mu woote ne ma nangam ak sàngam dafa dem ba ak njabootam sax nanguutul mm. kenn di dem ci ñoom di ñaanal ko du man te yow yaa ko dox kon buñ toogee faaw ma sant ma sant la di sant doomam yow yaa ko woon ak doomam soxna jaara ak Mohamed ñoom ñëpp daal wax dëgg yàlla lépp rafet na te loolu yow yaa ko waaw mais xam nga nit ki jaaxle ñoom ñi cëpp ba ñu jëflante ak yow ci njaaxle loolu ak njàqare mm-hmm. teguloo leen lu ñu manul da nga jëflanteeg ñoom bi wajjillaahi taala karim ngir jëm yàlla lu moo saa moo waxee da ma naan buur man murit la waaye waaye waaye Baay la laa ndax yaakaaruma ku dul sëñ Amdi Moodu Mbenda donc ku ñëw ci man ak njàqare duma la xëbal duma ma la tiital te du ma tas sa yaakaar dinaa jéem ci yow lu ma man boo ma fayee yàlla fay ma boo ma fayul yàlla fay ma loolu nag résultat fruit xam li ngay def ak fonk li ngay def ak xam sa bopp mm-hmm. te ku xam sa bopp nga mm-hmm. ku gëm ni que ci dëkk bi nga dëkk di Touba nga mm-hmm. murit saadix nga Baay Faal nga am na ci loo xamante ne que waru la te musoo ko defit te say kilifa it bëggoo ñu dégg la ci ba ilaa abadan lépp lu doomi gor di am wala lépp lu ñaankat yàlla di am yàlla sama borom dénk na la ko léegi dama lay tooñ ne mbir mi jaratul ngay feeñ ndax wutatoo ci dara waaye nag sant yàlla ndax li ngay génn mooy ñu baree bari ñuy toog di wax pour nit ñi woo leen seet def loo man yooyu man toog ma fii di wax pour nit woo ma mm-hmm. man su ma woo su ma toogee fii di wax ba noppi bu ku ku seetaan jëlal jariñoo bu la neexee bu ma woo mm-hmm. parce que yow di bi nga ñëwee sama kër nii rek xam nga ne lu mu gàtt gàtt fekk nga fi ay nit mm-hmm. te maa ngi dese ak ñoom te chaque jour noonu lay demee damaa dem ba yëf yi dama ko dama su ma xëyee nopp juróom-ñaari nit laa ci jël seet fukki nit ak ñaar laa ci jël xalwa weer wu ne ñetti nit lañ ciy jël parce que ci yooyu lañ nekk. boole ko Ndakaaru lii ci ay fan nga fiy def lii Touba ngooy def. bu dee wàllu rab Dakar lañ koy faj lundi. Mm-hmm. kooku moom fi ñu nekk képp koo xamante ni si ñëw nga Yoff fi ngay ñëw da ngay fekk kër gi day fees dell amul mm-hmm. ay dagg mm-hmm. tike wala nangam man da ngay ñëw. ku ci ne man ku ci ne kem fi sa doole toll fi laa lay dimbalee. bu dee Touba alxamis bi si ci des yëpp itam ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu dafa xat ci noonu parce que boo demee ba fi nga nekk dootoo mën a toog mukk te nit du ñëw fëgg na nangam su boobaa day metti teyit ay gor ngay jëflanteel ñu jox la seen alal il faut que nga service li nga servir leen ci li nga seq ak ñoom bu baax a baax loolu rek moo waral daanaka géej gee génn ak géej gee wax ak yooyu yëpp loolu moo koy waral yàlla xam ne ne bari na ñoo xamante ne si dañuy bëgg a am lii nga am ak man waaye boo gisee duma ma ko d'accord mooy man du fépp lay waxee dëgg la te yow buur loolu yàgg naa la ko wax ca démb mm. démb kon bu ma toogee ba tey mu waxaat la ko yow xam nga ne man la ma doon wax dëgg la mm, mm. ñaan yàlla téye naa ci boo xam ne ñett ñett moom du ko defal nit muy laam-laamee ci mbiram dara muy seet mm. muy xalwa muy génneel koy saraxam muy noob diggante góor ak jigéen ñeent yi moom damay ab taalibe di murit du ndamu du ma yëg waaye billaahi lazi laa ilaha illa huwa yàlla may na ma ci loo xamante ne si képp ku ma ci jëflanteel nga xam ne xam-xam randuwul mi ngi ba tey waaye dafa làqu Mm-hmm. macha allah mu ngi noonu li ñu cërale woon duudu ci waxtu jot na sëriñ bu lay tàggu. xanaa sant ñëpp ak di gërëm ñëpp di ñaanal Ousmane Sonko nag. sa waa waaw mu bokk. tayit waaye waaye Karim ma ngi yëngal ci wet gën. noo man Ousmane Sonko daal laa wax tayit ba ma lay wax mbiram yàgg na. kon bu toogee ba tey bu ma la waxaatee mbiram la ma waxoon dañu ma ci. incha allahu taala dina bokk ci élection yi te bu ci bokkee incha allahu taala yàlla dina ko jox ndam li te loolu. yàgg naa la ko wax ba ma la koy wax ay aji saar ak ndàngam sàngam ak sax xew Karim du ah, non non ah kooku déedéet kooku moom mbiram taxawut sax mm-hmm. waaw moom daal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di ko ñaanal yàlla boole ko ci bu ci bu ko ci yàlla boole yàlla na ko yàlla jox yëfi buur maa ngi lay sant na ma la ko daan waxee maa ngi lay gërëm wax dëgg yàlla teraanga junne defal nga ma ko sama sama doomu ndey li ma li tax buur mm-hmm. man ma bëgg la mm-hmm. buur saa bu la nit wooyee ña la damaa bëgg nga boole ma akub sëriñ man ngay woo mm. ne ma numéro sàngam day maa ngi la koy yónnee maa ngi lay woo maa ngi lay boole ak moom mm. maa la boole ak moom mm. nit loolu nag nit defal na ma ci lu ne ngir sa jëmm kon buur maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di gërëm sama caméraman bii nga xamante ne si moom itam ba jàppee ba tey bàyyiwul ak suñ waaju baax ji moom it yow wax dëgg yàlla moom euh, maaso spécial daal yow buur yaag sa équipe ñoo gën a kontaan jërëjëf kon jërëjëf gaañ yi